man euh, Ousseynou Sakho la euh, conseiller spécial du maire sage de la culture ak artisanat euh, tay nak li nga ma laaj ci plaque bi plaque bi dafa tableau bo nga xamni dañu ko place cinéma la tay cinéma ndax a bobu mi fi nek fi première guerre mondiale kon maam yu bari dañ ko fee fekk waaye ci béréb ba euh, sunu xale yi dañ fa dem di fortaatu for fa ay chaîne for fa plaque bi muy chaîne bi ngeen gis bu bokkoon ci ñu doon yeewe jaam ya plaque bi mu nekkoon plaque boo nga xam ni maanaam diplôme d'honneur lañ koy tuddee doon ko jox armée bi nga xamante ni si mooy armée wu français yi ñu ne woon fii doon fi liggéey liggéey boo nga xamante ni si seeni kilifa dañ cee kontaan

Il jom que fa taxaw fofu ngor moo fa taxaw fofu fit moo fa taxaw fofu je taxaw je nango bañ taxaw ay Sénégal pour li amone comme valeur demb ak barki demb ñu wat ko pour suñu assalamu mbokk yi ak euh, mm-hmm. euh, chef de village Bou. Tegu El Hadj Saliou tey ñu ñëw fekk si la. Mhm. Euh, fii ci dëkk bi xam ni. Mhm. yow la yàlla def nga nekk ci bopp bi. Mhm. ñu bëggoon a xam tey. Euh, bala ñoo yegg si ci euh, waxtaan bi kan mooy El Hadj Saliou Dia. waaw góor a xam naa nag mbir mi na ma bett tuuti waaye nag ñu sant yàlla bu baax a baax man maay El Hadj Saliou Thiam di doomi Abdoulaye Ndama Thiam nekkoon ngaay mekke fa la nekkoon ouvrier doon fa liggéey mais teewul fii ci gàttañ la dëkk nekk ci rak ci càmba alaaji càmba caam fii nag mooy tëgg gàtteeñ euh, maa ngi jël chef de village ki ci ku ñuy wax Abdou sama mag ñoo bokk benn baay maxaa ko jur Abdoulaye Ndaama Caam moo ma jur seen baay Alamin Caam mooy seen baay maam mooy seen baay euh, alamin am na ki ma xam ni moo xam xam ni moom ci la jëleen kii bi euh, am na benn différence ci diggante bi mënu ma ko mais ku ñuy wax cukkuli caam waaw moom lañu xam ñun ci suñu maam bi nga xamee ne xam nañ ni moom xam nañ ni moom bokk na ci ñu sosoon gàtteeñ waaw. mais gàtteeñ euh, ñun ñoo ngi dëkkoon daa 3 kilomètres. nii ci noor bi foofu def nañ fa cent ans waaw mais nag xam naa ma demaat ci kaw mooy ñun euh, bi ñuy ñëw ci réew mi ndax réew mi comme noonu lay demee ni ñu koy faral di waxee ñun suñu cosaan piir tukulóor la ñun ñu sant caam sama bàyyi ma xam mi nga xamee ni tey moom moo ñëwoon indi bi ñu tuxu see fii 76 moo ñëwoon fii chef de village moom moo ma wax loolu moo ma wax ne ma suñu diggante fii ak kel ñun tëgg gàtteeñ gi def nañu fi set siècle def nañu ko fii. juróom-ñaari téeméeri waaw moo ma ko wax de te won na ma ñeenti gent yi won na ma ko suñu diggante fii kel mu ni loolu ñun am nañu ko fii. ñun nag ci gent bi rek la ñu juddoo bii ñu mujj a déplacé woo ñëw fii ci la juddoo. mais ànd na ma ak moom ci fosam ba tàyyi ñu àndi dox mu won ma ci ñaari gent ba ñett ba ñeent mais ni ci des xamuñu ko mais gent bii ma xam ne tey man fi laa jóge tey tool ñu koy wax guy gent foofu lañu ñu commencé dégg olof ay tukulóor yu boo fa demee tey jii su ma jeexee danaa la woon danaa la woon lu bokk ci fi ñu doon tëgge te mooy mooy booba ñeenteel bi gent bi barki dem rek la fa dem di won xalé yi dindi fi fiñ don doon teggé fi gambi tëgg yi ak fi jigéñ ñi doon tabax bay ma xam ne ma fi lañ commencé dégg olof ñu amaat ñetti gent ñew fi ci gent bé mais ñun suñu cosaan ay rey laaw lañ jóge ay tuklor lañ wax ci liñu mag ñi wax mais biñ fi ñew fofu mala wax nonu ay tuklor lañ won mais bobu ay ouvrier lañ won dañ doon tegg urus jigéñ ñi dañuy tabax ay ndax tey boo fa deman bu ñu àndoon taxaw fii léegi ma rocc ma won la li jóge woon ci mbaadu togg bi won la li jóge woon ci talax bi muy tool bi may bay tey bañ fa jógee la ñu ñëw fii nu tuxoo ñun foofu ñu def fi téeméer at doog a tuxu si fii waaw waaw. mag ñooñu nag xam naa ni ku ñuy wax euh, suñu maam ci boobu aman naa ci tuuti. parce que moom dafa nekkan jamono yooyu ku xarala woon bokkoon na ci ñi jëkkoon ci ni mam euh, Baye Max waxoon euh, ku manan fital la woon ay jamono te booba képp ku fi nekkoon booba ñaar yi ñun wax dëggala la bu bu ma saa ñëw fokk nga jox ay ubri la woon fokk ñu jox ñu ci ni ma waxe woon ah, maanaam respect daal moom am na ay jamono am na ñu fi doon am leen teel sax parce que booba ñoom euh, suñu suñu masaa yor seen alal booba li gis nga li xewan ci buur yi waaye ak ba ñu ñu fàttali ko ci chef de canton sax ñun di xaleel suñu masaa ñëw fekk fi bàyyi maxa amaa ñooñu ñun dañ doon gis bi ñuy xaleel ñu am cër bu ñu ko doon sédd parce que ñun boobu amuñu woon lu dul ñun ay ouvrier lañu woon ñu ngi ci suñu suñu suñuy martu jigéen ñi ñu ngi ci seen ndaa di tabax te booba ndaa tabax ku ko ci la ñuy def ndox tout ñëpp leen leen dox bi dong amul woon dara amul woon man ba ci suma yaay nii xam ne ni tey ji maa ngi fàttaliku ku fi ma sa am ndaa bu baax moo la koy jox sam papa man bisite la woon te guurus la woon mais teewul mbaar mi tam ñeneen ci def ñu ngi fii leer yi euh, euh, gajukaay yi lépp dañ ko doon tëgg suñu maam jooju nag ñuy wax tukkili nag ñun xamuñu war naa mat juróom juróom juróom benn maam ci ñun yoo xam ne ñun waruñu ko xam mais kooku daana def leen moom waaw joxoon nañu ko cër bu baax a baax tukkili tukkili caam ah waaw ñoom lu doon jëfe leen tool man nag dama jàppul mais xam naa ni duñu war a sole ak Lat Joor waaw waaw moom daal ñun amoon nañu leen moom parce que yaakaar naa soo digloo ci seen euh, kii di nga gis ni man doon nañ wax ni suñu masa xandan daal suñu fa masa jógee jëm ngi gis ñun suñu penc la ñuy jaar pencum tëggaateeñ fi la jaar wuti ngi gis ñun may masa fàttali di ma wax ni ma génn góor gu fi nekkoon yàgg na fi la dëkkoon ku ñuy wax Baye Ousmane Saw parce que ma dégg muy wax xale laa mu ne bu ñu masaa toog ci ron daqaar gi moo nekkoon suñu penc ñun mu ni dañ daan toog ba tàkku saan ay tubaab romb leen ne mas nañ ko def tubaab romb leen ma juróom-ñaari tubaab gàddu seen i gàddu seen i bidon yi ndox ak seen seen i saag yooyu di daw jëm nii nee na nees tuuti ay fas ci waa Lat Joor yi euh, topp leen ñu tof waxtu ñaari waxtu rek ñu dellu si fab bagage yi ñu gis leen ñu rombaat leen jël bagage yi tubaab yi di ko yóbbu kooku moom mas namaa toog génn góor gu ñu wax Baye Ousmane Sow mag la ba mu faa toog léegi lee mat juróom benn fukki mu koy nettali. maanaam ci wàllu xarala. waaw li waaw. waaw kay ñun yooyu yëpp lañ doon liggéey ci wàllu weñ ci lañ doon liggéey euh, wax naa la ko fii léegi lépp lu jëm ci leer lépp lu jëm ci matériel bu ñuy bayee. lu jëm ci wàllu fital boobu suñu maam boobu moom man fekk moom moom ci ouvrier yi ñu ko doon defar mais suñu maam cukkili boobu moom dégg naa doon na ko def ba am na sax ay buur yu mas na ñëw ci ay ñu jege buur mas na ñëw euh, di ko indi ay kii mas nañoo laale waaw mas nañu laale loolu dégg naa ko kooku moom mag ñi nit li woon nañoo ko maanaam mu défendre boppam daal waaw mu défendre boppam ci alalam ndax daf ca boole woon ñoom dañ doon tëgg ak euh, defar ak di sàmm. waaw ak di sàmm. waaw kay luñ ko daan doy waaw xam nga der moom léegi la rek mais bu njëkkoon soxla la ëppoon njariñ ndox fa que teg yi ci la won woon euh, euh, daanga defar gis ku defar comme naa leen yëpp mbuus bu baax yooyu yëpp daf ci doon am dàll dàll bi ñun amoon nañu tey góor goo xam ne ni wax Baye Saliou Mbow ku ne xam na ko suñu dëkk la dëkkoon moom yàggula gaañu kooku dàllam moom macha allah moom siiwoon na fi lool waaw ak siiwoon na fi lool góor gi Saliou Mbow dàllam siiwoon na ci ñu suñu biir kër la dëkkal bàyyi ma xam mii tey moo doon jaay. kon daal boo déggee waaw bi ñuy tuxu fii ñun 76 ñun suñu dëkk bi 76 lañ ñëw fii troisième mois ci lañuy ñëw fii sama mag bi di alaaj Càmba daf maa waxoon ni ma Saliou maa mu ni ma ñun dey yàgg nañ ci réew mi ndax wax nañ ni juróom-benni gent am nañu ko fii mais Saliou xam nga ñun ñëw nañu fii ma ne ko waaw mu ne ma fii fu dutu gent mu wax ma ne ma fii na nga seetaan fii fi mooy suñu daanee dutu gent bii dëkk la bu dutul gent bi ñu fi ñëwee ba am 3 mois ñu si waxtaan mu ni bii dëkk nañ ko fonk duutu gent. muy ñetti dëkk ñetti tur yi. gàtteñ gi foofu laa bëgg a ñëw ñun ñoo bokkoon fu ñu nekkoon. ñoo bokkoon su bi ñu nekkoon parce que nga doon jot nii mais ñoo ni ñu àndandoo nag ni lañ mas a àndandoo ñuy wax gàttiñ géer gàttiñ tëgg waaw. géer ñaa ngi woon géwél ñu amuñu woon géwél géwel yaa ngi woon ci gàttiñ géer ñun ñoo ngi benn suñu village su bopp góor gi ñu wax Baye Makhou bi mu koy moom Baye Makhou mii ma lay wax sama di magu sama papa mooy moom suñu dëkk boobu noonu la demee woon tey jii. yalla mi dogal tay ji bi dik ci béeg ci fi mbay faal gatte bi nit wax ci fi bi ni fi ñewé tam ku ñu wax Abdou cham te nga dëkk te kër gele moko ko mooman ji genn aduna man ñeenti at yoni na ma fukki at man ne ci côté mu may yoni bi mu fi joggé sans problème man dañu dénkaat dëkk euh, di rafetlu seen ñew bi ndax li ngeen def dafa am solo ndax réew mi boo gisee daanaka doxul na mu war a doxe mooy dañoo bàyyi cosaan te cosaan mooy lépp histoire boo ko seet parce que réer na ci Sénégal amatu fi fii ngeen ñëw nag ki fi tëdd mooy ma Fatma fan ma ah nekkoon ki nga xam ne nii buñ koy seet nitug yàlla la parce que dem nañ ba ni wàllu yi la ndax bi mu demee ba nekk ci mbirum cado da ko mujj bàyyi dem fekki sëriñ Matar Koki Matar Ndoumbe mu mag ma ba mu fay ñëw mbooloo la àndal ak gàngooram waaye ba mu ñëwee ne ko damaa fas yéene tuub si nit ñi comme la ñuy wax duñ bàyyi weer ci benn fan dafa am ñu ne ko kii jóg ak mbooloo mi mu àndal ak góor yi mu àndal ak fetalam yii ñëw ne day tuub si tuub si wut day jaar sëriñ kooki ne ko léegi daal li malay lay nangul sa tuub mooy ngànnaay yeeg alal jeeg li nga yor yëpp nga jox ma ko mu nangu ca loolee ba ko defee mu ne fa ay at jàng fa alxuraan ba wàcc ko ba mu fa jógee mu yebal ko avant muy ñëw fii kër mu lumbi xari jil la njëkk ñëw kër mu lumbi fii sa fait à peine sept kilomètres ba ñëwee kër mu lumbi la fa amub diir ñëw nag sanc fii muy cilmaxa li indi ci turu cilmaxa yi ba mu ñëwee dana silmaxa jóob maanaam gumba naa silmaxa naa ci lépp lu neexutul yàlla daal di sanc fii nekk fi akuk njabootam bi nga xamee ne nii nekk na fi ba demit fii lañ ko denc am na ñu bari ñooy fii lañ ko denc am na doomi Lat Joor joo xam ne fii lañ ko denc muy Asu Jóob magum fii lañ ko denc ak ñu bari ba mu paree ci loolu ñu denc ko fii fi suñu Cheikh Fatma sama mag ñu bari fi lañ leen denc ñu bari daal fii ci famille bi ndax booba dem Touba jafe na fi lañ leen denc caatum Lat Joor mu Asta Jóob moom mu ñu fi denc Asta Jóob maguma moom ci boppam moo ma nettali ne ma Lat Joor ne ma sans bàyyi àllarba bi ji muy jógee fii di dem deqale yoor yoor bu ñuy dem fii ci yoon forage bi am na benn daqaar gu fa nekkoon te terrain boobu leneen ma fa la samp xeej ba daal di ne damaa bëgg képp ku ragal dee nga dëpp nee na ma booba moom maire bi ci boppam war naa am ñaar fukki at waaye nee na booba doomi buur lu teel a sëy fa la samp xeej ba tàggatoo ak ñoom ànd ak ñoom wuti Mbàkke Kajoor kon ñu dellu si fii bi nga xamee loolu am na genn góor moo fi nekkoon gu ñuy wax maam Mor Soxna Diop maam Mor Soxna Diop moom it saaxar Fatma moo jur bàyyam Amadou Yàlla mu nekkoon fii boobu fi ay mbént ñu ngi fi daan nañ fi ñëw sax am na mbént ñu mag bu fi newoon goo xam ne boo ñëwee ci mbént ñi da nga fay fekk ay pont ak yooyu ñu ne ci la Lat Joor daan def yëkk euh, ngànnaay yi booba it Lat Joor da daan jaar fi di jàll waaye booba ci lu ma xas sa ko nii daal la mbir mi tëddee Saxeer Fatma fii la ne ah comme ni ma la wax ci moom rek nekk ku baax Saxeer Fatma maanaam maa ngi la Saxeer ma moo jur Madoune Saxeer ma jur Madoune Saxeer jur Saxeer soxna Mbay Saxeer soxna Mbay jur Lat Joor hmm. noonu la demee. kon dafa mel ni bu ñu Lat Joor dafa tuub. waaw ñii ni Lat Joor dafa juddu ci njullit. waaw kon dafa mel ni biral nga ni. waaw Lat Joor dafa juddu. ci njullit. foofu dinaa la ci dikkal Lat Joor ñi naan dafa nekkoon ceddoo loolu amul dëkk bu ñuy wax Longhor Mbay mi ngi fii 7 kilomètres mm-hmm. man nekk naa fa boo fa ñëwee am na genn xewar goo xam ne fa la Maba Joxu nekkoon fa lañ daan jàng fa lañ defoon daara ji léegi boo ko dem benn poto lañ fa def fa la Joor xamante ak Maba Joxu ñu bari dañoo yaakaar ne Lat Joor daa jóge fekk Maba Joxu déedéet Lat Joor soxna soxna bay mbay mii ndayam waa walongor mbay la waa Longhor mbay la ba mu ñëwee Longhor mbay da ko faa indaale fa la fekk Maba Diakhou ngoon lettre moomu moo nekkoon ndey ndey daara yi la Maba Diakhou ndax soxna mbay jur soxna mbay muy fa la na fa dugg ci loolu mu dugg fa la xamanté ak Maba joxu ñi wax naan ci addu won la won ci addu ci addu ga la ci yobbu moy néegum ndayam pa len ge moko ci yobbu fofu lu demé won pa len paaleen ngone la Laatir ko jur la Laatir mom moy yobbu la dior ci pa len ge waye keur bayam saxar fat mom mu nga xamné moy fi ak modul saxar saxar soxna bay mu ko jur ñom ay alquran lañu. waxtu alxuraan la ñoom ñëpp waaw Saxar Fatma mii nag lii ngeen def noonu dañ koy rafetlu ndax euh, état ci boppam dafa war ñu mel nii fu ñu tëdd ñu defar leen defar leen fa loo xam ne nii ku fa ñëw xool ko gis ko xam ne ñii nit yi demb la ñu parce que ñoom démb bi ñu fi nekkee tam dañ doon liggéeyal yàlla mais dañ doon liggéeyal tam pour not genu nasaraan bi doon not loolu la njëkkoon dafa mel ni foofu sax la ñuy daaneele waaye bu ñu xoolee béréb bi ni mu mel xool histoire bi nga indi ci sunu maam Lat Joor fi mu jaar euh, soxna euh, Saaxawar soxna May mi nga xam ne moo tëdd fii di maam ci Lat Joor Saaxawar Fatma mi tëdd fii di maam ci Lat Joor nga xam ni bu ñuy wax histoire u Sénégal démb dañ ko tënkoon ci ay ñeenti baat mooy jom mooy ngor muy fit muy fulla mooy fayda mooy sàmm kóllëre te loolu tey dafa mel ni dafa réer ci jamono waaye nag kon mag ñu mel ni yéen suñ leen amee dañ leen di ñaanal yàlla waaye li ngeen wax nag dëgg la béréb bu mel nii nga xam ne tey nag yi fu leen jaar fu ñu neex jaar dugg amu fi lenn loo nga xamante ni si nekk na fi ba ñu war a mën a jàpp ni fii tey boo fi ñëwee boo xoolee di nga xam ni lii mooy histoire bi kon nag ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoo yore caada ji ci réew mi ñi nga xam ne ñooy gouvernement bi ñu nit caada yi nañu fexe béréb bii ñu defaraat ko def ko mu nekk benn monument boo nga xamante ni si noonu ñu ko waa Ngaye Mékhé xalaatee mairie ba xalaat ko doomi ngay xalaat ñi dañuy organiser benn festival bu mag mois de décembre e, festival boobu la tax a jóg mooy dekkal lu mel nii. man la Xaadim jóob doomi El Hadj Thierno Diop Masek Lat Dior di rafetlu li ngeen def tey ñëwoon fii si barab bu lajoor bi nga xam mi ngi fi tëdd en 1886 di jàmbaar Senghor nawe woon ko <clears throat> héros national kon barab bu mel nii comme ni ngeen ko waxee war naa gën a mën a ñu defar ko ba méngoog jamono hmm. ndax ku toll ni Lat Dior ñu ne fii la tëdd nu barab di mer war na nay mel.

après am na yeneen loo xam ne kii ko fi def buñ soñoon ñu gën koo defaraat ba méngoo jamono ndax Lat Joor kat wax dëgg yàlla ñun dong moomuñu ko héros national la gépp ak moom monde bi sax laay wax Afrique ñëpp ko moom ñëpp danoo fier si moom ndax nit ku ñuul vraiment ndax ni mu yëkkatee deru nit ku ñuul nekk doon fi xeex pour lu sigel nit ku ñuul kon vraiment buñ soñon barab bi di ngeen ko gëna défar ba méngoog jamono waaw ah, musée bi Macky Sall ko fi def wa buñ soñon nak li Abdou Diouf ko fi defon buñ soñon nak gën ko gëna défarat defaraat ba méngoog jamono comme ni yenen barab bi di mel ndax site touristique buñ soñon dañ fi ñëw di ko visiter comme ni ni visiter yenen barab yi nga xam Sénégal foo dem amna ñenen ñu xam dañ leen visiter dal bo xol la la jor def ñoñu defuñu ko kon buñ soñon la joon ni barab bi dina ni mel dina gëna défar ko ba gëna gën a baax wasalaam ngi fii mooy déggu ndéem voilà sit sa s'appelle fii ci Cilmaxa fii mooy déggu ndéem déggu ndéem nag boo ko déggee cosaan la ndax dafa doon dégg boo xam ni dafa nekk maanaam dégg boo xam ni dafa euh, daan nekk point stratégique parce que tubaab yi dañ fay jaar di fi wëgg seen i fas. waa ci jamonoy Lat Joor ci la ne Lat nag tubaab yaa nga déqale mu ñëw fekk leen fi donc. ci bi ci dégg bi dégg bi bu ñu ko gisee nii. dafa fesson del ak ay garab matone presque voilà 1 hectare malheureusement nak gis nga yep, taxaw yépp ci déeg bi la won fi yépp fiñu mew foon taxaw dafa nekkone bo xamni manam lendeum rafet vraiment un un un bijou waaw malheureusement nak comme ni mo waxee ñu ñew ni dañ koy def bassin de rétention tibb ban bi moi je crois que lolu aussi sax xel nangu ko dégg bu mel noonu da ko wara améliorer fofu nak aussi rek lañuy interpeller wat état bi ñu xolaat parce que tam am lo xamni bu ko rek kenn waru ko laal koy améliorer donc euh, voilà mais en tout cas man bima démé département biologie dañ ma garab y' a 100 ans 200 ans ñom avons nañ ko fay a kon liggéey rek la laaj ñuy def def journalistes ak presse bi dama leen mais aussi il faut am suivi ñuy vraiment autorité parce que ñun tay nañ lu ñuy def bi c'est le coordinateur du festival donc je crois que lool aussi il faut ñu defar rek moo ñu tax a jóg defar rek donc nit ki rek su ko defar taxee jóg da nga koy jàppale léeg-léeg may dégg ñu naan coow li mais coow li bari na mais tamit faw ñu ñuy defaral parce que ñun tey jii li ñu def nii il fait quel ñu bàyyi lépp ñëw fii donc dañuy ñaan autorité yi ñuy li buñ ko déggee ñu am lu ñu ci jëlee xaaj suñu kenn ñu kenn dañuy defar. mën naa bañ a taw forage bi sori jur gi fi nekk nii ñu ci bari dañu leen def ci camion heureusement sax taw na temps yi mais li nii man y' a 15 jours ñëw naa fii laa tabaskee mais dama dama dama tudd yàlla ñaan yàlla suñu borom mu taw dara nekku fi dañ doon jël nag yi di leen yóbbu xel kom parce que fii tawul kon tey dég bi ah, voilà très bien dañoo naan si wallahi azim mais nag yi mënuñu woon a dox marqué dama ne la da ngay romb nag yi ñu taxaw ci camion lañ leen doon def di leen yóbbu saalum di leen yóbbu xel kom kon dég bi bu fi nekkoon 12 mois si 12 nit ñi li ñu lekk jaaxul leen mais jur gi li ñu lekk da jaaxal bon jërëjëf yéen jëf maa ngi leen di sant d'abord ci intérêt bi ngeen am parce que dañ leen wax sur les traces de l'adjor Dior ñu xool li nga xam ni mooy sunu aada di sunu cosaan mais nag ñu mën cee sukkandiku pour defar ëllëg yéen journalistes yëpp national international et vous me permettrez de me rendre un hommage particulier à notre confrère allemand qui est là aussi Der Spiegel bokk ci euh, xaatim yi nga xam ñoo gën a ci journaux yi ci Europe donc bi ngeen ñëwee fii loolu dañ leen ci sant parce que lii mooy journalisme damay wax ni journaliste dafa war di dem fa mu gën a sore jël information indi ko tey li ngeen di bind fii li ngeen fi jëlee boo ngeen ko xaatime amul kenn kuy weddi ni seen engagement dans la profession et lu baax la donc maa ngi leen ci saluer di leen ci remercier di remercier waa Kër Lat Dior yi aussi euh, sëtam yi nga xam ni dañoo ànd ak yéen mais di wax ni li tax ñu teg leen ci yoonu Lat Dior mooy Lat Dior mooy héros national fasam maalaw mooy emblème fas yi nekk ci réew mi yëpp kon kooku bunu nu ci ay traces mën nañoo gis lu bari dee ñu visité waat démb dee ñu gis tay waaye nak ëlëk tay lañ ko wara tabax construire demain aujourd'hui et li tax ñu teg leen ci aussi moy bi ngeen ci duggé dem ñëwaat jaar ngeen fi dem Dexële ñëwaat Dexële nek à une 35 ou 40 km de Mekke ngeen xamni kon Mekke moy dënnu Kajoor fi moy capital économique gu Kajoor et lepp itam fi la daan jaar et fi dafa nekk benn point géostratégique boo xam ni kenn mënu koo contourner ci histoire Sénégal ñu wax kon artisanat bi fiy développé ñëpp xam nañu Dàllu Ngaay laaj na ñu xam donc ni moo ko histoire royaume Kayor danoo lëkkaloo. nag tey fu ngeen taxawee ngaay ngaay dëkk bu am solo ndax 1911 la nekk commune bi mu nekkee commune sunu maam yi fi nekkoon nekk Kuure Njaay Jàmmañaan Kuure Njawaar Kuure Xàndan Kuure yi fi nekk yëpp wër ngaay. ñooñu ci jamono yi fi tubaab bi nekkee ñooñu naan liggéey ay marakis naan ko ay ngaay boo déggee daalu ngaay loolu moo wax loolu moo cosaan daalu ngaay naan ko indi ci kër tubaab bi ci trottoir tubaab bi di ko jaay boo ñëwee jënd aw marakis yóbbu ko sa kër bu ñu la fa ngaay laa ko jëndee bu ko déggee daalu ngaay loolu moo ngaay kon yaakaar loolu comme solo la loolu nag mu nekk lu yàgg ci sunuy maam ak sunuy maamaat 200 ateliers yooyu au minimum athlète bu nekk lu mat dix ba quinze mi ngi ci ci suñu xalaat ci li ñu tënk mu athlète bu nekk mun a liggéey dix paires par jour <coughs> kon bu ñu ko jàppee ci suñu xay war naa nekk mille six cent paires par bis par jour mu nekk lim bu am solo tolloo bu ñu ko xaymaa ci alal mun na contribuer ci économie Sénégal kon yaakaar na ne ngaay lii yokk koom-koomu Sénégal ngaay ci la ko ¡En la